wax leen Ocass ragal duñ fii dëkk Fils de Balla Ocass ragal duñ fii doxal ne leen Ocass ragal duñ fii dëkk. combat bi ñu ngi koy paree comme ni yeneen combat yi rek ni daan paree yeneen combat yi noonu la ñu paree combat te incha allah dañ ci am ndam bu neexee yàlla. non loolu moom xam nga doo dem guerre di naan lii laa yóbbu lee laa yóbbu mais bu habitude la incha allah le 25 dinañ xam lañ indi incha allah rabbi. waaw moom laa ñun daan nañ gën a dis nii di dugg ci mbabat fekk ay 100 nangam litre di jongante ba jël ko kon benn combat jaaxaluñu ak luñ mën toll benn combat bi jaaxaluñu bu arbitre sifflé dañ koy duma daan ko ci kàttanu yàlla incha allah waaw mooy li nga wax léegi rek xamante nañ maa moom baax ndax laal nañ deux fois ku nekk daan sa morom kon xam na ma xam naa ko mooy li ma ko waxoon keroog signature bi rek pënd moo jóg ku nekk di yuuxu naan ci li war ci li ma war ci li ma mais bu bënd wàccee ku war mbaam ñu xam ku war gëléem ñu xam ku war fas ñu xam te allah comme ni ma dama koy duma daan ko incha allah ñëw ko fekk ko incha allah waaw combat bi la ma lu bari la ma jaral ndax def nañu wara def dal lépp lépp lu ñu def def nañ di xaar la 25 inshallah rabbi jaral nañ dal non inshallah rabbi bu nekk fi la jëm ci fa la jëm fulul ogas fa la jëm fi fii dañ ko fédé fi dem pigine fédé ko bu neexee yàlla. waaw comme limu wax non rek ku xamul mom xamna mo man xamna ko ay xamante la ko moom xam xamna ma ko xamako nga koo laale laalewaat ak mom mu daano benn ma daan ko benn kon xamante nañ. waa gars yi li ñuy wax naan ay combine laaj du combine ay xare lañ yooyu chaque jour man leeral dama ne woon sax dootuma ci wax yaa ngi dégg Toubacouta sama mbër la mbër laa xam nga li ma ay adversaire lañ mun ñoo nekk ay noon ci àdduna keroog bi ma mu bëri arène nationale ba gaañ ci tànk moom bokk na ci ñi ma njëkk a woo téléphone masawu ma même ci stade bokk na ci njëkk a naw njëkk a daw ñëw masawu ma aussi kooku mun ñoo nekk ay noon mais teew lu bëri jotee dañuy bëri ba mu neex amateur yëpp kontaan incha allah yow boo ñëwoon suñu équipe di nga xam ne Toubacouta njoolu sax wallahi lazim boo ñëwoon suñu giri ay jàdd ñoo fa nekk ay soq boo ñëwoon foofu di nga xam ne gars yi njoolul te bu absule njoolaayam boobu dina ko coûté cher incha allahu rabi man moom su ma demee bay ragal sama morom mbër wala sama morom góor ma teg sama ngem xool leneen yàlla xam na ko lu yàlla sàkk du ma ragal bu at bu siflee di xam ne dama ko ragal wala ragal ma ko la fa teg ñoo pare waaw moom dañ koy ñaanal fi mu jëm gën a ko mu jógee xam nga ñun xaalisu làmb lañu géndee sama baab woon bat leen sigi yaakaar naa yéen ñëpp xam ngeen ko sama sama mag Adoli Babacar Adoli xam ngeen kooku dafa toj làmb sama rakku papa Yanda aussi xam ngeen ko kon dama juddu fekk ngeemul ci kër xam nga li ma la wax waaw moom Badou Touré comme li ma wax rek waa ji sa jaarul mu bari la 25 ñëw na ba pare Badou Touré na taxaw dëggal boppam amateur dañu kontaan ñëpp kontaan bu dëggal boppam comme li wax keroog làmb ji mooy dàq ci année bi incha allah. dina yàgg wala du yàgg. non làmb la rek kenn xamul. mën na ñëw yàgg mën na ñëw yéex sans débat rek bu ngeen mu taxaw dëgg boobam rek bu yàggee ci moom la bu yéexee ci moom la léegi incha allah ci côté mobilisation bi lu ñu mën a xaar am nga base Pikine am nga base Ocass lu ñu mën a xaar ci yow waaw Dakar moom pare nañ Kaolack aussi pare nañ yaa ngi dégg te incha allah le 25 dañ xam ne waa Dakar pare nañ waa Kaolack pare nañ